xarit yi maa ngi leen di nuyu man seen xarit seen soppe ma Titi maa dellusiwaat di leen présenter seen émission Fambel seen émission Fambel nag xam ngeen ko seen émission la yéen a ko bëgg yéen a ko sopp di ko nemmeeku du xool fu mu toll ba tax na bu génnee ngeen aimé ko commentaire ko kon saa su ne rek damay ànd ak mbégte ak contentement di dellu si di jàkkaarloo seen kanam yu rafet yi di leen présenter seen émission Fambel Ni àndandoo di ko bëggee àndandoo di ko enjoy waaye tey sama émission macha allah euh, sama belle du jour jeeg la waaye lu tax jeeg nee naa leen jéegu Thiès ñoo def délégation ñëw seet si Ola Titi ne ko Ola Titi xanaa ñun bokk ni si émission Fampel ma ne leen ah kay yéen ci biir ndax lépp luy wane taaru jigéen la beauté féminine soit intérieur ou extérieur ñu ngi si émission Fampel képp ku yor melentaan jigéen wala sax di wuyoo jigéen yaa ngi si émission Femme Belle looloo tax waa Télé Prestige TV jël si kenn si jéeg yi daal di koy honoré sàggal ko def ko seen belle du jour waaye man dama koy tuddee jéeg di jour ba tax na tey maa ngi nii si këram dama bëgg àndandoo ki yéen ñu dem xool na mu toogee xool na mu toogee si biir këram ak jéeg ga mu doon na mu feesee place waaye nee naa leen tey boo leen xoolee gis ngeen tey dama daal di jaune daal di niroog uul waaye ba tey sama jaune day symboliser la richesse la ñu wax couleur jaune ba tax na tey muy méngoog sama émission ndax sama émission dafa riche jeeg si këram laa jël ndax jéegi dañoo bëri feem bëri ay salañ-salañ nee naa leen foo leen natt si taaru rek du doy ndax la ñu yoro ñoo bari ba tax na sama caméra mu men bi nga xam ne mooy aadama daf may daal di topp ñu daal di xool sama jeeg na mu toogee dëgg neexul tey ngeen di gis lu tara jarum ndax tey xol yi dina liw tey dina sedd tey ngeen xam ne rek jéeg yi mën seen façon xanaa li neex. léegi rek man tey lay neex jeexi rek ñoo ko yor ba tax na maa ngi nii di dox di dugg di xool sama belle du jour sama jeeg du jour macha allah ndax nee naa leen tey émission bi dafa riche dafa alaa daw me ndax nee naa la ñoom seen feem ak seen bagage yi ñu yore moo rëy te bari. salaamaaleykum. ah chéri Fatou ça va bien nam ma def waa gis nga nii nga def ak sa vax ah sa tey baas baax waa dina ma neex yéen a ko yor de waaw gis nga ah, ah, maa la gën a bég maa la gën a bég <laughs> ñoo ngi nii ça va bien non non sonnuñu so pas tellement toogal prenez place waaye ngi nii waaye gis nga ñoo ngi ñëw waaw waaw gis nga gis nga mais aussi ñu ñëw macha allah daal di lay fekk nii dafa mel ni ñu ñëw teel a ñëw wala aussi yaay naaja ndékki non non man damay teel a jóg nag di ah. defar ndékki xam nga jeeg rek dafa war di teel a jóg yor saay salañ salañam rek ci loolu la rek <laughs> loolu am na ba tax na tey waa téléprestige ñoo la sees si faatu mm-hmm. euh, ñëw sees na daal tey def la seen jeeg di jour mm-hmm. macha allah loolu moom kontaan naa ci trop damay ñaan euh, yàlla na émission bi yàgg te sax rek ay xéewal yu yaatoo yaatoo yaato kontaan naa trop. léegi nag balaa dara xew nag dama bëgg ngeen toog tuuti ma xel leen kafe ngeen naan ñu soog a làng nag waxtaan tuuti. waa Ada dañoo fekk si jeeg jeeg ju ma jeeg daal di fees place am macha allah boo ko xoolee nii rek xam ne euh, la ma yore ëpp na ba tax na jëlal ma lii mu def ndekki yëpp xam nga lii du ndekki coma sama caméra bu mel bi jëlal ma lii xam nañ lii du ndekki coomam ba tax na ndekki bi dina ma neex ndax man xam nga damaa bëgg lekk ma bëgg nag aada daal di may piis su ma ko ne piis ma code la sama digganteeg moom dina xam li ma koy wax ndax damay bañ sama DG Pape Doumbouya daal di gis ne may ndekki xam ne budget la bu ko defee rek payoor bi day yokk te macha allah dama koo yërëm ndax Olof Njaay nee na euh, foo dénkaane sa nen doo bëgg ko fa sànni xeer wala ku yore xeer sa jege fa noonu la ñu mel si Pape Doumbouya mel ko si Prestige TV ba tax na euh, lu ko xosi lu koy tilimal doxuñu <laughs> léegi lima jek aku kau jadi dressage bi ah, ada jek jek jek yang kaya nanyu jek dah lima jek Wah di mana ma neex eh. ku xool lii xam ne ñëpp don jek doon jeeg may mapi Myriam ma chérie yàlla na nga doon jeeg waaye Adama madame Ba aka bëri fee maa ci xam dara yërëm naa <laughs> aada nee naa la xam nga man macha allah euh, damay ndékki ba suur ma bëgg nag nga couper caméra bi nee naa la couper caméra bi bëgguñu ma xool may ndékki sama ndékki bu la te de damaa ñëw kër jéeg mu sagal ma daal def dressage bu rafet. aw ma fayam su may wax si moom tey soo ma dem jël fii ba minuit du ma pare ndax euh, ni mu ko waxee taalibe sëñ la loolu la ma wan ba ma fi diggee ba tey moom la bëgg moom lay tiitaroo moom lay ndamoo saa su nekk ba na ko ba suy génn si biti sax barke sëñ Fallou jël ndox wiis. kon ki xam na laa koy tuddee alalu borom Touba. den jeex na. macha allah ndékki nañu ndékki bu riche nee naa la bii di fees na sax xam naa ni wax gi sax duñ ko mënan mais rek euh, pour tuuti rek comme saa su ne rek bu ñu jëlee suñu biir du jour il faut ñu waxtaan ak moom tey jii ñu jël la def la suñu biir di jour mais man damay naan jéeg du jour laa lay tuddee ndax macha allah kenn du jéegi ba tax na euh, lu tax nga sentir sa bopp si émission fembel ndax tey ji yaa ngi fi toogal euh, turu jéeg yëpp. macha mm-hmm. allah li tax ma sentir ci sam bopp. dama cee sentir sam bopp toogal ci jéeg jëpp parce que jéeg bu baax ci këram day gérer normalement gérer famille bi gérer susuma borom këram parce que góor ñi kenn mënu leen a téye waaye yow li la war rek def ko gérer bu baax bu turu am fenn ndax bu ñu génnee leen lu ñu gis dañ tey bàyyi seen xel waaye sa kër yow na nga xëy gérer sa kër toppatoo say doom sustu saa ba ku génn ñu xam ne yow say doom toppatoo nga leen loolu bëgg naa ko ci. loolu aussi taar la te émission Fambel dañ na taar. soit euh, extérieur ou intérieur te yow taar bi ngi may wooy moo extérieur nga ma nga ma wax mais euh, ma lay laaj moy euh, tax nga gis sa bop ci émission fambel donc yow en tant que djek ndax parfois parfois xalé lay laay jël mais tay euh, pour la première fois ma jël djek ma sëkk djek machallah allah ngeen am wàll ci biir émission euh, fambel ndax bu dee taar rek macha allah yéen a ko ëppale. Mm-hmm, mm-hmm. macha allah loolu dama ci content, parce que gis na ci sama bop te set dafa bari façon dafa am bu ne ci biir am bu ne ci biti te jéeg bu baax day boole ñaar yëpp foo taxaw ñu xam ne yow macha allah te man tubaar fakal la macha allah footuma sam bopp man ci loolu laay dox te ku ma xam ci loolu nga ma xamee waaw. waaw ba ñu aussi loolu nga ñu waaw ndax euh, li olof naan gan euh, ay bëtam nag la yor waaw dañoo dañoo xool fu mu ne aussi Sénégal la nekk comme ni émission politique élection présidentielle xamaguñu mais da nga nekk euh, citoyenne waaw dëkk bi am droit am comme donc ban conseil ngay wax ki nga xam ne moo mi ak conseil loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar pour tontu la li ma ciy wax mooy maanaam yàlla mooy fal ki yàlla fal rek nañu ànd ak moom xam ne kii yàllaa ko fi teg ñeneen ñi ñu gañee tamit nañu muñloo sunu borom te lépp ci loxoy sunu borom bu ëllëgee ñoom tamit ñu toog ki ñu yàlla di booleel nañu toppatool sunu Sénégal liggéey te yàlla kesey tax ñeneen ñi topp ci gannaaw tamit ànd liggéey te yàlla ki tax loolu laa ci am lu ma ciy wax. waaw loolu dinaa la si fekk si ndax ki ñu fal aussi euh, na boole attente sénégalais yëpp yi nga xamante ne fal nañ ko mu daal di koy gérer macha allah bañ a tas suñu yaakaar loolu tam ci la. waaw loolu tamit ci la te am naa yaakaar euh, kii ñi fal ëllëg yàlla rek moo xam du tas yaakaar te yàlla bu yàlla tas yaakaar parce que Sénégal ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay. muy musulman bi chrétien bi ñëpp benn lañu kon nañu ànd liggéey te yàlla kese tax teg lépp ci loxo sunu boroom ëllëg ku fi toog ñu xam ni kii moo fi toog ñu ànd jàppale ko te et puis ki toog timit na bàyyi xel ci sunu gannaaw parce que sunu njaboot gi gannaaw yàlla ak yonent bi ñun ñoom rek la ñu yaakaar mu jàppale leen bu baax. kon waxtaan nañu macha allah nee naa la man ndox ki mooy fu ne nii mooy xaw a metti parce que macha allah Fatou damaa ñëw nga gane la ma te macha allah man ku ma doon ma fayu ba tax na damaa bëgg ànd ak yow dafante yow yu baax dafante yow yu fi jeeg duggante yi si dëkk bi ñu fal falaa def lu ñu neex. waaw loolu moom dinaa ci kontaan waaye nag suma ma sañoon nag ngeen yendoo ak man. damaa doo damay fayu. munoon ngeen a xaar rek yendoo ak man rek ma waaxu nànk dugg ci bi ceebal leen.

doo am benn perte blanche xam nga tey dalay jox odeur bu normal. maagam jéegi ay maagam jéegi. man moom rek laay wër ci lii rek laay dox. Hollande nag danga maa bett moo tax. dara du la fay dara du la fay. sama siwa cuuraay yeeg fer yi. li metti bu boobaa nag émission bi day a ala daw man man ci yooyu laay dox man ci yooyu rek laay dox <laughs> parce que man loolu daf maa intéressé daf maa yàgg intéressé. naa Gueye Taraanga bu déggee lii dina kontaan sama coach boobu moom yii rek la bëgg moom yii rek a kay daaneel. waaw gannaaw ba ñu demee sunu kër jeeg daal di koy dem jëli macha allah yu neex xew fa ah, lu lu cuq yi xew fa fii laa ko indi fii Grand Thiès ñetti kàdd ci salon Koumba Sow salon sopp sëñ Babacar Sy léegi dañuy daal dugg si biir salon ma daal di koy présenté sama coiffeur ndax mu mën a defar moom yëfu jeeg dëgg neexul sama coiffeuse ngi macha allah moom it kenn du moom gis ngeen ko nu mu yànjee ma daal di koy nuyu na ko Kumba ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Oula. waaw Kumba ñoo ngi fekk nga ñëw di capp cappal di kanam gi. xanaa bëgg a def ba mu baax rek yaa ma gën a xam ndax yéen ngi def jonga ma pire. waa fay yéen a bëri affaire. yow safula dina ma neex. waaw gis nga tey dañoo doxoon si ah, ba si yow ndax macha allah nee naa leen jeeg laa la indil macha allah waaw gis nga ko de ak teint noir bi macha allah ma daal doxantu fii ba sa salon daal la koy indil bëgg nga defanteeg moom yëfu jeeg ah, dëgg la waaw moom ku ko xool xam ne jeeg pire la jongama pire la macha ak teint noir yaa ngi baax ñu war a defante lu baax rek war a pire loo mu baax xanaa neex. kon dama lay bàyyi nga passé ak moom journée bi def ak moom génn fi li mu jéegi ak salañ salañ jéegi. dina ma neex. dina metti de di xam na tey lépp dëgg la jege aaye ci maa ngi leen di fàttali yéen si émission Femme Belle bu Prestige TV gannaaw ba ñu demee jàmm gën jëri suñu jéeg di jour fi ko këram macha allah mu fees dell place am fii lañ ko indi Grand Thiès ñetti kàdd si salon sopp sëñ Babacar si bu Kumba Saw macha allah sama jéeg pare na ko xool xoolaat ko ba tax na Kumba damay kontaan na la li nga defal sama jéeg di jour rafet na macha allah. waaw maa ngi nuyu Oula di nuyu waa Thiès Prestige yëpp di kontaan ci émission bi tourné woon naa ko ñëwaat di ko tourné waat. dina ma neex ah, jéeg ci këram boo ko xoolee xam ne rek jongama piir la dañ ko defal euh, à fois defal ko chignon bas defal ko maquillage ak mun naa nice trop def jongama daal waaw ma gis aussi ni chignon bas pour man dama koo gëj a gis pour man sa chignon bas dangeen ko xewi ndax xale léegi damay gis aussi euh, mën naa ne jigéen ñi sax léegi cheveux yi la ñuy gën a préféré est aussi ku indi sa cheveux rek di nga ko mën a defal chignon o ak chignon bas bu dee moom la préféré waaw euh, bu fekkee da nga indi sa cheveux naturel tamit dinañ la ko defal chignon bas fantasy chignon bas bu rafet mais chignon bas mi ngi place am ba léegi parce que boo bëggee def tiire xëcc sa kanam war a def sa fulaar chignon bas moo koy génnee merci waaw damay kontaan nag ndax nee naa leen la ma soxla woon si moom pour bëgg ñu génneel ma ko franchement dama koo génneel ba sama xol sedd nga daal di def monsieur bi cekkate ndax lii ku xoore xam jonguma pire la instant yi moom dong mooy mooy fes fi mu toll nii moom du moom macha monsieur bi rafet na macha waaw macha xam nga moom dafa def rek jongama rek ci këram boo ko rek ak fulaaram ak maquillage am rak nga war a xam jongama pire la macha allah def rek ci xale pare namul dara. ak Thiès Prestige rek ah jongama yaa ngi tukkal àdduna. léegi ma xool ni ba nga koy maquiller aussi amoo benn problème parce que aussi nee naa la mën sa liggéey dafa wóor ah da ko def ak passion ak amour mu doon aussi lu gaaw jëluñu fi temps trop aussi passion boobu nga am sa liggéey lan lay def si yow. ah xanaa di si kontaan rek parce que li nga xam ne da nga ko def ay at plus de vingt ans danga koy maîtriser tellement que boo koy def man gis naa ne que waroo fee nekk daal di. xaan-xaan yi da ngay ñëw rek dóor ko mu daanu macha allah mu ñëw rek def jongama boo ko xoolee xam ne jongama pire la. waaw nga nekk coiffeuse boo xam ne dañ ko ràññee fii si Grand Thiès rawatina sax laay wax si Thiès si coiffeuse yi ah, nga yor aussi famille nuy mën a dundee sa coiffure sa liggéey ak sa famille aussi est-ce que famille bi aussi euh, xale yeeg njaboot beeg sëñ beeg duñ la baare carrément sa liggéey daal. non non non non loolu moom vraiment du ma yàqal dara parce que liggéey bi yàgg naa ci dinaa mën a gérer famille bi gérer liggéey bi daal duma ci am benn problème. waaw kon Kumba dama lay bàyyi nga daal di tàggoo wax fi sa salon nekk macha allah nuyu ñu la neex woo jéggi nag ndax lii nga def ku ko xool xam eh, xaritu jéggi nga te mën nga eh, li war dem si jeggi daal xam naa di nga mën def ak jéggi. waaw laa may kontaan ci émission bi rek di woo jéggi rek ak xale jigéen ragi tamit rek ham, ma gën a xam ñi bëgg lu baax fii rek salon Kumba Sow Grand Caisse ci rond-point ñetti kaar di sopp Serigne Babacar Sy boo ñëwee dinañ la defal ba nga mel ni gis nga ni def jéeg bi rek. te du ci jéeg ji kese de ak defante xale jigéen yu baax. ndax yow lu baax la tax a jóg. macha allah man rek ci xale namuma dara. <laughs> waaw gis ngeen jéeg gi maa ngi leen di woo ah nee leen fi mooy salon Coumba Sow nekk ñetti cadre di salon sopp sañ Babacar Sy nee naa leen amul jànk amul njagama amul jéeg ku ñëw rek macha allah dana defanteeg yow lu baax ku xool lii mu def xam ne dafa mën liggéeyam macha allah eh, kenn du Coumba Sow bi rafet na chino bi rafet na te macha allah sama jéeg eh, gën naa fes waa mooy li gën a bëgg si moom na gën a wane taaram ndax taar bi moom a gën a soxol nee naa Euh, teint clair ku mu si jàpp rek macha allah dina la defal ba nga jéggi daayoo ba tax na rek damay kontaan bu baax a baax a baax si lii mu defal sama bel sinon bi rafet na macha allah. waaw gis ngeen sama bele ngi pare na macha allah nee naa leen dama doon xalaat si moom amoon yéene ko si moom nee naa la moom lañ ko defal ba tax na damay kontaan bu baax macha allah ku xool musóoram bi xam ne musóor bu rafet lañ ko defee booleeg chignon bu rafet muy yëfu jéeg dëgg ba tax na faatu dama koy naan noo gisee sa bopp. wala maa ngi leen di nuyu di leen sant bu wér macha allah ni ma gisee sam bopp ci émission bi man defoon naa ni yow xale yi rek ngay jël. waaye macha allah ñun jéeg yi gis nañ ci sunu bopp ndax ñëw naa ñu defal ma coiffure bu normal muy chignon te li ci ëpp fi mu nekk actuellement cheveux rek la xale yi def waaw def musóor maquillage bi normal macha allah bi may ñëw ak léegi am na différence parce que bi may ñëwee defoon naa ni man nii sa coiffure defal ma duma ko am waaye nag vraiment kontaan naa trop macha allah. waaye ñun boo bëggee rek ñu bëgg ndax macha allah euh, li leen di bëggloo rek si la ñuy dox surtout maa man man Ola Titi li bëggloo jigéen ñi rek laay dox ba tax na nga ñëw ñu defal la rafet li dama ci kontaan bu baax a baax ma gis loo aussi dafa pose dama gis nga fuddan say tànk euh, fuddan say loxo. Ola man lu ci bari damay fuddanu man lu ci bari damay fuddanu di wone jekk.

man sama lépp sëñ Fallou la boo ma woowee ci sëñ Fallou rek di nga ma jot ndax samay nopp sëñ Fallou ma joxe sama yaay booleeg nañu doon taalib sañ sëñ Baara kontaan naa trop ci question bi mu posé man sëñ Fallou moo nekk sama gauche nekk sama droite nekk sama digg macha allah.

ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Mouhamadou Fadal parce que sentir nañ ci suñu bopp te et puis yéen ñii tamit di def seen émission bi tamit macha allah mënoon naa demee neneen waaye man sentir ni ma ci sentiree sam bopp noonu la ci ñeneen sentiree seen bopp voilà maa ngi koy ñaanal muy borom télé bi doomu kees xaw ma ko nag te xam naa ne bu ñuy yàggee dox dinañ xamante. xam nga kooku baax aka baax sama DG boobu. kon DG maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér DG yàlla nga yokk ba ku ne amin rek DG yàlla na yokk ci barke Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal yàlla na ñu dundi ba nga ubbiwaat ay yeneeni télé ci barke yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa boobaa maa ngi yow aussi pelloo de yeneen télé yi dañ ci pelloo de. ay su boobaa su boobaa de dara du doy. man de xamanteeg moom rek laa bëgg man de xamanteeg moom donc parce que man bi ma leen gisee daal aimé naa leen te ni ma leen aimé ci moom la ci moom la jóge waaw ba xam ko rek nag laa bëgg nag loolu rek laay xaar nag. incha allah dégg na la DG ngi liy dégg bu soobee yàlla xamante gi mel na nekk na. waaw kon jeex na. kon jeex de. seddal nga suñu xol de nee naa leen suba ba tey ba ñuy ànd ak yow xol bu sedd rek la ñuy ànd ak yow xol bu nga daan daal nee naa la xol yëpp a liw ndax macha allah nañ la fekkee sa kër ñu ñëw àndateeg yow si suñu borom solo suñu xol day gën a sedd euh, ma bàyyi la nga daal di tàggoo nag daal di nuyu ku la neex dafa lu la neex macha allah ndax tey dañ na jeex te xam nga jeeg dafa bëri feem gis nga sa feem yi nu mu bëree macha allah ah du yomb sama émission bi dafa ala dawme. voilà kontaan naa. yéen laay njëkk euh, sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yokk ba yëg ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yow sama doomu ndey nga sama xarit nga sama reen xol nga parce que gis bëgg yàlla moo koy def te yàlla daf ñoo boole du ko sante nag Ami Gueye Ami Gueye lu jara sant la parce que gannaaw yàlla ak yonent bi xame bi ci moom la jóge waaw kooku dafa ñàkk ki ñaan ndax moom mbëggeel ga ca moom la jiitoo waaw noonu lay mën a demee parce que doomu bala mañ si pire la waaw bu ma weesee loolu nag maa ngi sant euh, sama waa kër sama jéeg ji ca kër ga maa ngi leen di sant di leen gërëm muy jama si la mati ndooy ndooy Malick Maram ndooy kooku nga xam ne ñëpp dañ maa féetaleeg moom sama jéeg maa fi gën a jéeg kenn ku mooy fóot bu ma tilimee mooy fóot mooy paase kenn ki di matindooy mooy bale mooy defar lépp samay clé samay caabi moom moo ko yor sama denc moom moo ko xam ki ci des nag di jabaru caat muy asindooy waa mooy jabaru caat waaw sama xarit caat mi nga xam ne damaa takkanteeg moom gore dëgg deexul waxal si caat <laughs> caat moom dama koy ñaanal yal na ko yàlla la fal cat sama caat moom moo di méngeeg moo di maam Yacine Awa Jëmb ak Faali yal na ko yàlla la fal xalaatuma dara ngir sama caat moom ndax mooy sama doom mooy sama rakk mooy sama lépp muy Mouhamed Seck yàlla na ko yàlla lafal cat amet ku ko xaar ku ne yàlla na xàddi booy xool sax su ma dee wax ci moom sama xol day tooy ndax dañoo nekkaloon ak sunu yaay sunu yaay xamuñu ko dul sunu yaay ñu teel a ñàkk yaay amet daw rek tafu ci man ak samay rakk Ameth lu teraanga bu du teraanga ji ne Ameth daf ma koy defal Ameth dama koy ñaanal yal na ko cet seexlu ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa su ma jógee ci loolu nag damay dem ci Ndey Mbarka Ndey Mbarka Gueye dafa am doom moo tax génnut kooku ti maa ngi koy sant di ko gërëm di koy ñaanal li muy jeex ci kër gi yàlla na ko yàlla yombalal su ma jógee ci loolu nag Ola dama nekk sama caat bu jigéen muy maam maam Fat Sow Seck fekkoo leen fi ce matin bi nga ñëw parce que dafa dem école sama caat moomu nga xam tamit bëggul leen lu ma métti bëggul lu ma déranger su ma feebaree Fat Sow day feebar su ma amee lu ko metti dañuy day am lu ko métti ñoom ñëpp waaye nag da cee am ñoo xam ne day am fu ñu toll ci yow muy maam Fat Sow Seck Fat Sow maa ngi lay ñaanal moo di méngeeg moo di maam Yacine Awa jëmb ak faale Fatou Sow li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal sa liggéey bi yàlla na ko yàlla barke di ñëw nag ci sama doomu ndey muy maam Penda Faam kooku sama doomu ndey la sama xarit la sama reenu xol la sama lépp la te yaayam yàqu ci dara maam Penda yàlla na ko yàlla defal cat moom tamit yàlla jàppale ko du ko sant du ko gërëm mam pend mënut a yëngal kaasu soow ca këram boobu te ñamuma ko mam bu ma demee saal lu mu guddi guddi lu mu togg il faut dina ma ko tibbal ci plate muur torchon defal ma jus indil ma mam dama koy ñaanal moom tamit aussi yàlla naa dund ba du ko làngal ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa su boobaa di nga xam ni am nga mag ju mat mag sunu yaay ji tamit muy mère Anta dañ koy ñaanal gudd fan ak wér mucc ak mucc le waaw ku baax waaye bëri mbokk ba tax looy wax sa coiffeuse bi nga xam ne moo la génn fii remercier ma ko waay kumba ëpp na <laughs> kumba kumba dama lay ñaanal kumba yàlla nga yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sañse bi macha allah parce que bi may ñëw ku ma jéggi sa ndox doo ko naan waaye tubaar fakàlla macha allah yàlla sa loxo wér ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waa koñ góor ak jigéen mag ak ndaw parce que koñ ba daal tubaar fakàlla macha allah waaw ñoom ñëpp daal macha allah sama waa kër timit comme ni ma ko waxee rek maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan gudd fan ak wér parce que ñoom ñoo tax dafuma ah ñoom ñoo tax dafuma sama yaay ja ci àjjana yal na xeppee ci àjjana firdawsi ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama borom kër bi ma woon gannaaw timit fa mu tëdd yàlla na ko dàqal fii kuwaate lu ma mel tey ak lu ma am rek gannaaw yàlla ak yonentam wu tedd wi rek dama ko sante Cheikh Tidiane Kouaté Cheikh fa nga tëdd nga sedd guy ba mel na glace li nga fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxoom lépp luñ la ñaanal yàlla la fekk fa nga tëdd parce que li mooy àdduna demal ak maa ngi ñëw la rek waaw demal maa ngi ñëw la rek kontaan naa daal yéen ñëpp kontaan naa tamit famille maa ngi nuyu famille Cheikh Kouaté ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn daal macha allah yàlla na yàlla daf daal barke Cheikh Mouhamadul Faara barke sëñ Baara. Eh, sama macha allah ku xool émission bi xamna tay dama ala daw me nee naa leen xol yi yëpp liw na xol yëpp sedd na macha ndax sama bel bi nena na ñak ko xam wala ñak dafa mom émission wala ñak ko fekk ci worul ba taxna l'émission tire à sa fin mais damay nuyu tout le personnel du groupe Prestige TV maa ngi di nuyu commencé ci DG ba wàcc souf ñëpp nuyu na len maa ngi leen di delo njukkal bu baax a baax di remercier aussi sama camarade bu même bi ma muy Adama madame Ba koy sama setu bi Prestige TV maa ngi koy nuyu baax waaye du ma fàtte Myriam Myriam aussi damay bëgg mu nekk jéeg comme ni Fatou dafa may neex yal nañ dund ba mu nekk jéeg boobaa dina xam ne lépp dëgg la ma plus chérie à moi waaw ma plus chérie à moi aussi di remercier sama tailleur yooyu ku si mel ni Baye Balla Mbuub Ibou Samb foofu sa jaxaa juma Alpha Thiombane waaye du ma fàtte la couturière si Sylla nekk foofu si ngent de voye jàkkaarloog école primaire bi dama koy remercier bu baax su ma demee nag te remercier wu ma aussi euh, Seynabou Diop nee naa leen du ma gor kookoo nekk biir marché central Rue Petersen nee naa ne bitik saabu bitik vex waaye dend ak aussi xaritam doomu ndeyam Khady Konaté mi nga xamante ne mi ngi si Facebook bi si produit autriche bi comme ñoom ñëpp rek di ay jàmbaar may remercier aussi Ndeye Khady Dieng ma jumelle chérie di remercier madame Diop Kor Mourad foofu si France waaye Zaïgel aussi si France du ma ko fàtte waaye aussi may remercier sama coiffeuse kooku mooy Mame Diarra Salon sopp sëñ Fallou nekk foofu si Ngent

fii si Prestige TV kon ba beneen yoon.